daaw da Fall de koy bëree. yow laay ma jëkkër waaw moom ginnaaw sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur gërëm sama gars yi nga xamante ne ñoom laa fi àndal si mel ni daam si mel si mel ni Thiel maa ngi leen di gërëm bu baax a baax baax baax di nuyu tamit ñi nga xamante ni mooy prince ñi nga xamante ni tey jii nii bu dul woon ñoom ñu xam saa ñoom ñun duñ dem saa ñun ñoom duñ dem di gërëm tamit ñi nga xamante ne ñooy tëggkat yi ñii dañoo yaakaar ñoom. waaw am na seen rakk joo xamante ni dama génn àdduna bëri. seen doom la. sama sama gaañ la bi mu gaañoo man maa la woon yow. doon déggante yow. parce que dama ko doon déggal si làmb bu baax. dëgg la waaw ma doon mbërëm. barki alxuraanul karim man maa koy ñaanal ci mu jëm. moo ko xam yàlla na ko yàlla naare àjjana ko jaajëf. macha allah jàll bisimilah. waaw salaamaaleykum. di nuyu képp ku fi teew. di ko commencé si promoteur bi di nuyu parent bi merci beaucoup ci li mu accepté parrainage bi di nuyu Mandiaye Seck bu baax di nuyu sant yow toog fii yëpp di nuyu suñu mag suñu lépp nuyu Nabiyaada ak kenn àndal di nuyu suñu père Pape Ndiaye di nuyu suñu père Mbaw ak suñu père mi fi teewal seen say di père Cissé sama xarit la nag waaw fu dajee nag faaw mu juree mais sama xarit. la nag yëpp moom moo la yow non man moom yàlla dogal na ni mosuñu ma dagg. Ah, kon damay soob. waaw ah, di nuyu presse bi tey yëpp nag di nuyu sécurité bi xam nga di nuyu waa Guinée bu baax di nuyu waa Casamance waa Pouye waa Bokot maa leen nuyu bu baax a baax waa Thiembare waa Kapous di nuyu Joolay ne foofu yëpp famille Diatta day wax comme ça seen combat di nuyu waa Diofior di nuyu Birame Djilas di nuyu di nuyu Gorgui Ndiaye bu bu Simal di nuyu Ousmane Diamé bu Fimela. di nuyu El bu Diofior. mais eh, eh. dama nuyu woon Modou Paye. di nuyu suma papa suñu lépp muy Samba Ndour. di nuyu Touba suñu papa suñu lépp. waaw di nuyu Wuri di ko wax combat combat am la Issa Sakho di nuyu boobu borom Casamance catégorie 1 ak waa catégorie 2 yëpp maa leen nuyu xam di nuyu Omar Pall nag di ko nuyu baax a baax di nuyu Ibaas di nuyu waa Guèye bu ma dëkk di nuyu waa Waal bu baax waa Kër Momar Sarr waa Ndié waa Poxol xam nga waaw Soas Moussa Thiam xam nga maa ngi nuyu bu baax a baax waa Diamina xam nga waa Ndimbu waa Ndimbu Pël di nuyu waa Golom waa Yiba waa ñii waa Cike képp kuy nekk waa waa rek di téye kurus. combat sa combat la maa ngi wa dalal loxo bu baax a baax di wax nga ñaanal xam nga di nuyu bu baax a baax a baax eh, di nuyu bu baax a baax waa Ndar di nuyu waa Fouta. sëb dëkk wolof yëpp maa ngi lay nuyu di nuyu waa Thiarène waa Liw waa Pare. di nuyu suma papa suma lépp suma jóg papa suma jóg aw ko sa fay yaa ngi sama papa di si lamb lu nuyoo doy moom bu amul mbokk man dama am ay mbokk te dañ ma yaakaar waaw jëlal jël quoi parce que ma lay wax ma lay wax di nuyu sponsor bi yëpp ah muy DGP bi di King xam nga di Amonia xam nga di waaw damay loolu ak ci sama dëkkuwaay ak sama papa moo xam muy Pa Papa Sane Ngom di ko sant bu baax a baax a baax di wax waa Guédiawaye lépp lu ngeen doon bëri am na ci léegi jërë ñëw di ko teewul fii xam nga di jox lu ñu prendre ko la gën a incha allah. ok léegi saa yi mu ne làmb du nuyoo kase saa yi li mu nuyoo daal li mu wax kenn donc kii dafa waroon dem pare la ah waaw léegi yéen ñaar xamante ngeen. waaw xam nañ xam na xamante ren bu baax kay man bu ma nee xaw ma ko damay wax lu ma ne bu nee moom xam nga day wax lu ma. seetaan nga ko. seetaan naa ko classe bi yëpp seetaan naa ko bu baax. donc loo gis ci moom. daanaan la daanaan la daanaan la. daanaan la du ma ko bañal mu du ma ko nangul tey ma bañal ko ko. Ah. waaw. kii man maay mbërëm. kii damay bëre mu ñëw waa ji ma ñaan la kii man man maay mbërëm. ba ngay bëre moom. du la moom nag bu mag la. te bisu mag la nag bu mag mooy dee si bisu mag. moo li muy wax nii li muy wax nii. sama mbër laa andi woon muy bëri si kalaaf ma xool ko ñi man tal ñëw dajee moom naka mbër yàlla na la yàlla may tal di nuyu ñu may entraîné bu baax a baax suñu papa suñu lépp ñu ko su Lamine Faye maa ngi koy bu baax a baax sama kii xam nga ko bi man maay diriger fi toll nag da nga may wuyu kii xam nga xam naa ko bu baax a baax fii kii loo may wax ci lu ma lay wax si bu ñëwee lépp lu am laaj la jàng man kii combat yi ma seetaan yëpp action sur action comme ni ngay bëree waaw kon day neex incha allah damay baax nag mu nuyu ñi nga xam ne ñoo fi baax. ana fee bi fee bi di nga leen nuyu ñoom ñëpp amul problème mais ñu waxtaan ci moom ñëwal ma ci kii xeetu bëri bi bi. waaw moom mooy li ma la wax rek gis nga tay jii nii ndaanaan la mhm. du ma ko bañal dama ko nanguloon tey du ñëw ma bañal ko ko mais bis bala maa gëm ni ndaanaanam bala ma koy gën a gëm maa moom ñu laale ba pare. barki alxuraanul karim parce que moom adversaire mu doon am Ahmad ma xam ne du benn. yàlla ma yàlla sa kaw. adversaire yi ngeen am am ak moom am na différence. am na différence kay mooy sa palier. Modou Mbaye yàlla ñu yàlla may ndam ci kawam kon bu mu ñaan yàlla ndam sama kaw. kon moom na gëm li mu gëm rek ba le jour ji mu xool ndax plié laa du ma. commencé dans xeex ba waa Yoff mere bi doo ko bi doo xeexal. non combat bii nii dinaa am nu ko gérer rek man ndam rek ama si ñor te koy am si kàttanu yàlla combat bii nii teg si jeexal tàkk. yaa fa teg jeexal yow. dara deseetu ma ko pour le moment dara <laughs> nee nga ñun dañuy yóbbaale. moom ba mu teg jeexal ñun dañu. yow buñ la gagné dañ lay ànd bulldo. waaw jeex na dañoo yóbbaale nga moom mii moo la taxaw naa daal teg jeexal. ma la man mi ne sama ma yóbbaale. Eh. waaw moom sànq na ma ma ingénieur yi dana pauvre yoroo dara moom wax na ma loolu kon moom gis na ko si man. xam na ni combat bi jaral na ma lépp loo xamante ni am naa ko si adduna teg naa ko si parce que combat bii nii ma jaral moom amaana moom xamu ko bu jàppee ni combat bi combat ma ñàkkal fayda la wala xamante ni damay mu ngi nax boppam loolu mooy kii dama ragale li mu añee dafa neex moo tax lu ko sax mu wax ni ñëw naa ànd ak sama grand sama lépp muy pas de Cissé dara fii ñu fi nekk normal ma sant ko gërëm ko aw ma fayam xaaruma am combat à chaque fois mu ci man di sant ñu ma fi àndal ñëpp ñëpp ñëpp di sant Sall may entraîné suñu papa suñu lépp muy père père maa lay sant bu baax Jamil Jamil maa lay woo ci combat bu baax a baax a baax musul bàyyi. léegi yéen ñaar seen combat jeune moo ko tëgg comme yéen tuddee na ko ndaw comme yéen ay ndaw yéen message bi ngeen di lancé jeunesse bi waaye message bi ngeen di wax ci promoteur bi ñu soo ko woote. waaw presse presse moom suñu presse la ñun ñëpp ñun bëri yëpp waaw rawatina nga xamante ni moom la seqal kooku lu ma dugal si lu si àdduna rek dama si barki alxuraanu karim te lu ma ko rëcc mukk kon presque moom suñu grand la suñu gayan la ki nga xamal naka combat mu def Rawzane yi xamu ko sax wallahi azim ñi ko bëggoon bëri nañu mais yàlla moo dogal moom mu tëgg ngir ñaan waajur mais ñu nga si siy wax ni carrément làmba ji du am lenn loo xamante dina ko si rëcc man gëmuma la mobilisation mobilisation bi dina doy dina doy bu baax a baax a baax di woo waayoof ñi nga xamante ne tey jii si wàllu liggéey nañ ñëw taxaw pour dëggal seen bopp pour jëndal ñu tike yi booy ñëw. waaw maa ngi ñëw si loolu. loo wax ci Prince. waaw man avant toute chose sax may doxal ay combat bi muy muy avorté moom bu demee bu jël sama avance damay sant bu baax di ko wax nag jox naa ko cër jox naa ko cër bu baax de. jin dama lay wax moo génn yow yaa gën a entraîné wala yaa doole yaa ngi nax eh, nekk si noppil yow mi si ginnaaw. bu baax. loolu la posé ko question lan mu wax loolu. dama koy wax ni ko. ñi def nii maa leen ko bëri parce que sama bu ndee ba ma ñëw ànd ak quelques personnes. c'est grâce à la presse. am na li am dañ waaw yow mbër la day bëri mooy bëri grand premier combat man quatre personnes la fi indi moom la presse bu doon woon benn benn laa koy indi bu doon woon man kase man kase maa ñëw. léegi woote leen. man mënoo maa jaxase France moom day bëri. si sama si jeune combat lay bëri. nañu yàlla daan man aw ma affaire moom man yow laa amal affaire. ndax da nga jàppal li maa fi indi ñi ñëpp. day bëri mbër la. quatre personnes la indi quatre personnes nga indi fa la ñu yem te maa ngi nuyu sama ñaari. woote woote woote waay. ñaari yu nekk Yoff laay nuyu. maa ngi koy nuyu baax. di nuyu sunu yaay Saxar Sarr maa ngi koy nuyu baax a baax a baax. rajo woote waay. waaw di si wax waa Guèye yëpp day wax lamb ci seen di si wax waa école lutte Balla Gaye yëpp di ñaanal Balla Gaye yàlla may ko ndam képp ku dëkk Guèye waay am combat yàlla la borom bi may ndam ci barke Seydina Mohamed. di woo di woo Thierno Thierno depuis États-Unis naa koy woo mu ñëw di loo di woo lay ñaan di woo suñu grand suñu lépp xam muy baara depuis France xam nga di woo suñu tooma bu di Fall depuis Turquie ñoom Serigne Ndiour ñëpp ñu ngi leen di woo ci lamb ji sama mën naa Espagne di ko rek waaw la poog di ci woo sama waa Fanskër bu baax a baax baa baax a baax di ci woo borom mayu interne ah moom du ngaa xam na bu ah. li may wax bu baax a baax a a baax loolu ay der kese. moom xam nga da ngaa ñàng de. moom. waaw. dafa si gàllaaj bu ko tegee si gàllaaj dina nax bopp. léegi booy bi gis naa ko muy entraîné de. moom. dama wax ay wax xam na man leen jël si entraînement naa contact ak yéen lamba yi bu ko tegee si gàllaaj bu ko tegee si gàllaaj gàllaaj day wor. ay wor nag ay wax laa koy wax gis nga li muy lim nii fii yëpp amul njariñ am na koo xamante ni seen koñ ñoom fële dëkk suñu koñ la nekkoon ñaari kër moo dox suñu diggante kon moom man yooyu beneen ma laa ba xamal laa si gëm entraîné gëm ni ñaari waajur moo lay may ndam te bi dee loolu la man am naa ko woote voilà kon yi muy lim nii yëpp ay deuxième la voilà man maa ngi woo moom. moo maa ngi woo waayoo gépp le 21 yàggat yàggatu lu fi waay waxoon rek waar bi ne prix ay wax du fa jëfu fa yam man loolu laay xaar di leen woo ñoom ñëpp di ko woo nag carrément ñëwal jàpp si bu baax daa nga si jàpp bu baax yaa ngi siy jàpp mais gën jàpp gaynde ndax ingénieur yi wàllu tike yi moo doon suñu problème waaw tey xam naa ne boo taxawee rek lépp dina suti ñu ngi lay woo bu baax baax. di woo ki nga xamante ni mooy Moussa Fatal ñu ngi lay woo bu baax baax baax baax ndax laa ba ñuy passé gis nañ ni mu def waaw jënd na ticket yu bari may booy ñu dem jëlal ñu ay carte di woo ki nga xamante mooy monsieur le maire mi fa nekk mooy suñu maire la ñu ngi koy woo bu baax baax baax le jour yi mu ñëw jàpp si bis bi te xam ni soxal nañu di oo Abdounaar di oo Abdoulaye Diouf Sarr bàyyi ñu kenn ñu ngi woo ñoom ñëpp di woo ki nga xamante ni tey moom lañ tuddee drapeau ñëwal jàppale ñu waaw parce que dégg nañ li wax si yow yëpp te xam naa ne presque bésam du ko tudd ku ndaw kon nag mu lay woo si bés bi nga ñëw taxaw ñu si wàllu dikk yi bis bi gën a riis waaw loolu lañ soxla eh, di gërëm di gaa yëpp di gërëm plongeur yëpp di leen woo ñoom ñëpp nag man bu ma limee plongeur rek xam naa ni ñoom ñëpp dinañ ñëw quoi di woo euh, mool yi nga xamante ne ñoo nekk yëpp di moolu mbaale yëpp maa ngi leen di woo bu baax baax baax baax baax di oo met sama doom mu ngi woon maa ngi woo bu baax a baax baax baax di woo képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo Yoff képp koo xamante ni yaa ngi bëgg git di woo Ngor Yoff Wakaam Trawo Almadi maa ngi leen di di woo waa di woo waa Tubaab Jalaaw di woo waa Këfantin yëpp maa ngi leen di woo pour ñu ñëw si bi di woo waa Kayaar bu baax a baax a baax a baax bon acca bismillah suñ papa waa di gërëm suma ménagère Matar Ndiaye waaw saa damay toog nii sax koy bëgg a wax mais koy fàtte. waaw suma papa la suma lépp la maa koy gërëm bu baax a baax depuis booy ba tey ñu ngi ànd xàttiwul benn yoon maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax. dafa baax kooku nit ku baax la. noonu la mel noonu la gërëmee sa sama adversaire da lay mel. non Fatma Dia garaawul. suñ papa suñ lépp ah. Fatou Cissé aw ma fayam. trois blocs la may hmm. maa ngi koy xaar ci lamb yi. suñ papa Cheikh Cheikh Sow maa ngay xaar ci lamb baax a Aliou Lo borom Sondrio ñaari borom la sos si làmb waa dimanche yi seen borom day ñëw Modou Mbaye presque barki kii dinaa ma maa la supporter ambiance bi mu mën sax maa ko siy daaxal xam nga daal wax naan baara mbay lam si làmb mais damay xëcc lool maay ko daal bi incha allah. adoo sama sama baara mbay la si sama baara mbay la da si cos trop. parce que heure boobu bi ñu lay gën a. moo lay wax ni fan si la. day toog di seetaan su may douze ans yëpp. conseil bay jëm ma baale soxla photo presse kaay